dal leen ak jàmm moodu moodu sàccul fenul dafa daani dooleem génn dëkkam dem bitim réew ngir dàqi wërsëgam uti teraanga ngir suturaal boppam te teral ay wayjuram jóg ak daanu moom la moodu moodu yu bari dëkkee waaye daanaka ñu bari ci ñoom saay bu ñu amee mébét ngir ñibbisiwaat fii ci seen réew daal di fiy liggéey am ay yóbbante yu ñu jox ci ay doomu aadama ngir ñu jàppale leen ci seen mébét yooyu saay bu ñu ñëwee day mel ni ay naqar dong lañ ciy fekk naqar ak mbégteel moo dal tey kenn ci ñoom ba tax mu jël baayam yóbbu ko ci yoon ab moodu moodu buy wuyoo ci turu Ibou Gallo Dioum ay atam toll ci ñeent fukk ak ñaar nekkoon Europe ca réewum Italie depuis atum 2002 moo yóbbu baayam Modou jum am lu ëpp fanweer ci ay at ca yoon ana lan moo waral loolu Modou Modou bii di Ibou Gallo Dioum dafa jiiñ baayam ak wor ndax ab xaalis bu takku bu toll ci ñaar ci ay millions ci suñu xaalis moom la jox baayam boobu ngir mu yóbbul ko ko may bu njëkk ci ab soxna sum doon nobanteel waaye mel na ni baay ba daa mujje ëlbatiku jël ndaw sa la def ko muy soxnaam moom daanaka lu ëpp ñett ci ay at moom moodu moodu boobu di Ibou Gallo Dioum mu ngi ko doon ànd ak ndaw si ñuy woowee Ulay Sañ nekk ab coiffeuse ay atam toll ci ñaar fukk mbëggeel giñ doon dindu ñoom ñaar tax ba moodu moodu bile fas yéene daal di jël ndaw si def ko soxnaam ba tax mu daal di yóbbante baayam ngir mu utali ko soxna ca noonu mu yónnee baay ba lu toll ci ñaari million yabal ko ngir mu dem takkal ko soxna bëgg-bëgg bëgg-bëggam nekkoon ñu daganal digganteem ak soxna soosu di Ulay Sañ waaye ndekete li mbëtt bëgg moom la bar bëgg baay ba dafa teg bëtam ci soxna si naka noonu ci la baay bi daal di jël alal jooju def sa poosam daal di dem ca kër ga ngir ñaani soxna pas pour doomam waaye ñaani soxna ngir moom lii daal ca dëgg-dëgg mooy kawte sa doom jox la alal ne la demal takkal ma soxna nga faf takkal sa bopp ci ayu bés yu topp topp ci gàmmu gi ñu jógee ci la moodu moodu boobu di Ibou Gallo Dioum xibaar bi bile mbetteel ak njaqare gu mu am ci mbir mi tax mu ne dafay porter plainte yóbbu baayam ci yoon ndax daf ko wor ndaw sim doon gént mu doon soxnaam gannaaw mbëggeel gu mu amoon ci moom tey doon na tàntam ndax baayam jël na ko def ko ñetteel mbir mi fi mu toll nii Ibou Gallo nee na da koy topp ci yoon ana fan lay mujjee ak baayam may samp dong ay laaj ndax doom ji ak baay ji dëkkati ci am kër ana ban bët moom la waaye jii di Ibou Gala Dioum nara xooleeti ndaw sii mu bëggoon ba bëgg ko def soxna ndax ndaw sii ak paa bi amul woon lu ñu jotoon a séq laata doom ji di ci bëgg dara ak ana taxawaayu justice ci mbir mi ak su ko waree attee tamit naka la koy attee mbir mi doy na waar lu ci mënti am dinañ ko topp tànk tànk ngeen indil leen ci yeneeni xibaar yu wér te woor jërë ngeen jëf